Euh, bu euh, CLG alors ñu ñëw ci yéenekaay bi de la Soleil boobu moo gën a Ah, voilà yéen kay bi de Le Soleil nee nañ accès au logement loyer SICAP SN HLM foncier le président pose les fondations démb rek ñu ko doon waxtaanee euh, wàllum kon accès au logement mbirum 100 mu mel ni président Diomaye dafa déglu dem euh, suñu info matin euh, mu am pàcc bu am solo bu mu ci rek jagleel ci conseil des ministres loolee lañu fas yéene kon daal di waxtaanee ci plateau bi alors aujourd'hui notre point actualité ci loolu lañ koy rek daal di concentré alors Malick Thiandoum gis nga lii. ci euh, yéenekaay yëpp presque euh, xëyee nañ ko wàllu ban kon euh, président Diomaye mi bëgg gën a dëgëral lu jëm ci wàllu accès au logement lan moo ci sa xalaat. waaw dañuy rafetlu démb conseil des ministre Euh, directive yi nga xam ni son excellence le président de la république Bassirou Diomaye jaxaar fay jël na ko jëmale ko ci wàllu logement muy dëkkuwaay ndax dafa am signal yu foor yu nga xam ne moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko wone nañ ko euh, bi ñu jëlee nguur gi mhm. maanaam saytu lépp lu jëm ci wàllu suuf si euh, foncier nekk lu nga xam ne Euh, jafe-jafe yu bari am na ko ñenn ñi akimoo ay hectares yu dul jeex au détriment de de des sénégalais lambda yi nga xam ne xëy na seen loxo jotul seen digg ginnaaw te privilège yi li leen ko may mooy bokk ci nguur wala bokk ci système bu nga xam ni di nga mën a jot ci suuf si ci anam yu nga xamante nii yu yomb lay doon alors que tey góor góorlu bu mel ni man pour mu am cent cinquante mètres yu mu tabax sax problème la donc tey mu euh, wax mooy yu nga xam ne mooy yu fort la parce que le président parle d'urgence sociale euh, ci wàllu logement ak loyer xam nga urgence sociale rek boo ko urgence rek boo ko dugalee mooy lu nga xam ne lu jàmp la lu ñu war a saafara la ci nu mu gën a gaawee mu mel ni dafa am benn programme de rénovation euh, euh, de développement du du du du logement sociaux. Mm. yu nga xam ne tey moom fas na ko yéene teg ci taabal ji mu nekk une nouvelle politique de l'accès au logement te loolu yaakaar naa ni président wane woon na ci ay jéego bi mu wàccee ci terrain bi dem Mbourkat. dégg ngeen barki démb bu muy waxtaan ak journaliste yi leeral li nga xam ne indi na ko ci ñu ñu caxat caxatee suuf si. ci littoral bi gis nañu le premier ministre bi mu fa wàccee yi tamit li nga xam ne wax na ko ba mu amoon des arrêts du travaux des travaux. ak ci yeneen secteur yu nga xamante ni gis nañu problème foncier bi c'était vraiment une bombe. il y une boulimie ci régime ni ni ñu aakimoo suuf si dafa xaw a doy waar te tey sénégalais bu nekk euh, buy liggéey wala sax sénégalais bu mu mënti doon boo xaree xolam la ca nekk mooy am kër bu mu suturloo dugal fa njaboot. mais sutura la sax. sutura la. Mm-hmm. sutura la donc tey da ngay liggéey ba. à traité pour nga tegale brique ak morom ba problème la doo mus a xuloo ak maçon te loolu warul mën warul mën a nekk looloo tax le programme de logements sociaux yi le prés l'ancien régime avec le président Macky Sall initié woon lu baax la. lu baax la mais li nga xam ne tey xëy na moom moo ci laxasu rek yow xëy na yaa ma ci gën a maîtriser mm. sax mooy ci doxalin bi mm. ak ci tamit baral bi am na lu nga xamante ni sooxee na ci moo tax mu ne dañuy def li ñu tuddee bilan maanaam taxaw càmbar lu jëm ci wàllu pôle urbain yi càmbali tamit projet de logement sociaux yi. waaye gën a dooleel SICAP ak HLM. Mm. loolu yi tamit lu lu lu jar a taxaw la parce que ñun ci euh, dans un passé. récent hein gis nañu euh, avec HLM ñu bari dañ doon am euh, moom la ñu tuddee habitation à loyer modéré loolu lañ doon def ba yombal nit ñi pour ñu am kër donc am na noo ko doon fayee nu nga xam ne du diis ci yow te balaa ngay dem à la retraite nga matal ba am kër gu nga xam ne moomal nga ko sa bopp. Mm. politique sociale boobu moom la ñu war a gën a ñoŋal gën a dooleel si SICAP gën a dooleel li nga xam ne moom moo di la SNHLM waaye tamit li mu wax mooy gën a simplifier les procédures. li nga xam ne moom mooy euh, euh, maanaam autorisation de construire yow xam nga ci dara def nga ci émission defati ci émission pourtant c'est dématérialisé maintenant. voilà il y mm-hmm. yu nga xam ne tey dañ ko war a yombal. Mm-hmm. tey jay na ba mu bëgg suuf. ñu wala am benn parcelle bu ndaw bu nga xamante ni moom la bëgg a tabax pour dugal fa njabootam am na ay tracasseries yu nga xam ne boo ko ko tegee ak ay complications dafay dem ba xëy na dafay tayel mm. wala mu tabax te teguwul ci yoon ëllëg ñu ñëw ni ko ana say këyit mm. toj ay tabaxam mm. donc loolu yaakaar naa ni politique la bu nga xam ne ñun daal dañu koy euh, euh, encourager te le président et allé plus loin parce que il a même instruit au premier ministre mu woote conseil interministériel bu ñu jagleel wàllu dëkkuwaay donc am na waxtaan yu bëri yu fi amoon am na conclusion yu bëri yu nekk ci tiroir yi am na lu ca baax nañ ko jël li nga xam ne yi tamit dañ ko ci dolli ñu dolli ko ci bu ko defee sénégalais bu nekk am kër mën a yomb ci yow wàññi nañu njëgu ciment bi mën na gën a wàññeeku pour que vraiment loolu nekk lu nga xam ne lu jàppandal lay doon loolu daal ci conseil des ministres démb bi loolu rafetlu nañ ko leneen liñ ci rafetlu rek à titre subsidiaire ñu yokk ko ci mooy a instruit également au premier ministre mu euh, euh, gaaw def li nga xam ne mooy déclaration de politique générale donc retour à l'orthodoxie et à la normale mm-hmm. parce que ça c'est l'article cinquante cinq du euh, mu ko nu ñu koy waxeeti de la constitution moom moo wax ne premier ministre dafa war def déclaration de politique générale devant l'assemblée nationale mm-hmm. loolu mënuñu ko dindi mënuñu ko toxal mm-hmm. kon loolu yaakaar naa ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a posé les jalons woon a président assemblée waxtaan nañu euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ca assemblée ba di député yi ñi ngi xool nu ñuy def ba joyanti réglement bi bu ko defee premier ministre dem def déclaration générale ñu xam fan la ñu jëmale réew mi loolu lu lu war la lu jaadu la lu ñu war a def la. en tout cas euh, sa gis-gis euh, am na solo ci bile dossier donc Chérif par rapport un peu ci président Bassirou Diomaye Faye lu mu bëgg gaaw a gaaw a dee lu jëm ci wàllum programme accès au logement. logement waxuñu waxu programme 100000 logements mais accès au logement. Euh, am na ay jàngat ñu ñu bëri ñi nga xam seen xel dañoo màcc ci wàllu euh, dëkkuwaay ne nañ mbir mi ñett moo koy lijjanti mooy ñetti effet lu jëm ci wàllu foncier. fiscalité ak financement parce que kenn mënul wax euh, wàllum tabax surtout logements sociaux te tegoo xaalis. Euh, bu bëri ci kaw table bi parce que promoteur yi nga xamante ni ñoom ñooy jël euh, lu jëm ci wàllum logement sociaux daanaka amuñu marche loolu moo tax dañuy def li nga xamante ni mooy benn mixité dañ leen ni permettre tey jii ñu def ay logements sociaux et des logements de moyen standing pour mën ci ñoom euh, génn tey ban mécanisme peut-être bu bar la ñu war a mën a teg pour li nga xamante ni ay wax la rek depuis des années franchement nga xamante ni chaque jour dañuy wax accès aux ñu mën ko ñu mën ko mu nekk une réalité. ce qui veut dire que donc li des mooy volonté politique. ndax mhm. yéene am na solo lool mais boo amul volonté politique doo mën a. réaliser li nga xamante ni moom mooy sa yéene ci F yooyu wax nga ci lu am solo mooy foncé bi c'est problématique la mm-hmm. bërki démb kaawu Dakar ak pré-rapport bi nga xamante ni commission ad hoc bi remettre na ko le premier ministre on annonce rapport général bi ngir Sénégalais ay xam d'abord de quoi il s'agit parce que journal bu Source A dégg nga mu joxe kaawu aéroport boo xamante ni on est parti de huit cent hectares à presque 40 c'est une catastrophe mm-hmm. ak ñan ñoo nekk les bénéficiaires quand ci euh, suuf soosu nga xamante ni oui oui régime yi fi jot a jaar la mais ci libéraux yi la gën a wulee ñaar bu ne libéraux yi nag mooy à partir de mille ba 2024 bi ñu nekk loolu moom day loo xamante ni lu lu doy waar la loo xamante ni président bi xam na ci dara son premier xam na dara parce que ñoom ñi ngi ci administration fiscale fa nga xamante ni fa lañ di séddalee suuf te ñoom it am na loo xamante sax jot nañ ko ci am donc muy loo xamante ni il faut que mu équité am équité nag mooy Sénégalais yëpp yem ci li ñëpp bokk. Mhm. te suuf si war na cee bokk benn la waaw waxu fiscalité wax nga ko parce que euh, journal euh, Libération wax na ba ne ay redressement fiscal xam nga tamit cimenterie yi. je pense que faut que mu am te conseil boobu interministériel bi loolu la ñu xool est boo xojee aussi comme ni ko sëñ waxee yenn euh, entreprise yi fi nekk yoo xamante ni ci wàllu fiscalité est que dinañ dem ba ñoom it li ñu xaaj ci ñoom ñu mën ko def. parce yi dugg ci logement capital fonds waaw li li li ci ciment bi ñu yóbbu ko foofu. Mhm. est ce que xool nañ koppar ka ko yor ak nam ko yore est ce que jaar na yoon ak yu ni ñu évaluer ko parce que yëpp dafa am solo parce que xaalisu ay sénégalais ñoo dem jënd ciment ku jënd ciment ñu am luñ ca roppat def ko ci fonds bi nga xamante mooy fonds de l' social yooyu yëpp c' est des yoo xam nañ ko war teg ñaari société nationale yi fi nekk wax na il faut ñu percussion naka lañ mën a amee une grande société une seule société nationale boo xam ne moom lañ dénk tabax ci wàllu logement sociaux pour su ko defee sénégalais li ñu xaar ci ñoom ñu mën ko def loolu beneen problématique la boo xamante ni xëy na ñi ngi xaar kilifa yi ci wàll woowu su ko defee nga impliqué nag le privé parce que état mënul def lépp mun na yombal parce que privé yi gis nañ tamit ay ñu ciy def ay jéego di tabax ay logements sociaux mhm. yoo xam nga ci dara yoo xamante ni quand même pour dimbale leen et je pense mhm. que dinañ leen mën dugg ci bu ko defee ñu xool mhm. que ah ñëpp amee kër voilà bu ñëpp amee kër voilà loolu la et nañ ko def pour euh, daal di rationaliser li nga xamante mooy koppar yeen ca def mais aussi mën a atteindre les objectifs parce que mbiram logement moom c'est un problème sérieux gis nga li fi Habib wane mhm. et puis fii ñiy squatter léegi c'est pas seulement ñi jóge ay doxandeem ah, ñu dëkk ci mhm. dëkk baa ngi ni di squatter la xew ba dem fa am moom rek lañ gis mais gars yi ngi squatter kër jàmbur yoo xam sax pour génne leen fa problème parce que amul fu dëkk <laughs> et, l'autre problématique euh, euh c'est également parce que tey jii nii bu nekkee dañuy jéegaane ay matériaux de construction bitim réew c'est normal que nekk construction chère parce que day am ay taxes yu ñu ciy def ak yooyu moo tax dañoo war a gën a may doole ñu voilà ñu industrialiser un peu euh, donc de production euh, am na ay ndaw yu bëri yi nga xamante ni jamono ji euh, am na ay exemple yu am na benn ndaw bu nekk Sandiara moom policier lay tabaxee genre xale yu yu mel noonu dañu leen war a kon di gën di di di di di may doole may mun a Dieynaba man sama xalaat bu gàtt rek mooy peut-être xel mën naa dal ci euh, ñaari fànn maanaam euh, ci côté bi ñu naan euh, moom njiitu réew mi dinañ càmbar yorinu pôle urbain yi dinañ xoolaat itam. logements sociaux yi parce que jafe-jafe yi fi amoon la gis nañ ko fan yi tamit euh, logements sociaux yi la da ngay gis ay privé yoo xam ne ñëw nañ jël seen xaalis dugal ko euh, daj lu nekk nag ngir euh, am seen seen seen moomeel mais gunge gi ci war moo dul am dañ ngay gis ñoo xam ne ñu ngi fay ba léegi état bi tamit duñ koy duñ koy gis jamono biñ naan dañuy wàññi peut-être train de vie état bi à côté mun nañ xoolaat tamit joyanti bu baax li doxul parce que logement sociaux yi tamit priorité la nit ñi dañ koy dañ koy soxla ku nekk nag boo sañoon euh, da ngay ubbi ubbi dëkk officiellement maanaam mhm. loo xam ne da nga koy tabaxal sa bopp waxu waaw yaa ko moom waxuma ñëw <laughs> dépensé comme niñ ko waxee waaw ku fi njëkk yaa ko moom mais defar sa euh, moomeel euh, ubbi dëkk ci loolu nag ñu ciy xaar ñu xoolaat SN HLM euh, SICAP parce que ñu bëri amoon na ay mag ñoo xam ni ci lañ jaare woon ay jamono amoon seen kër loolu mu nekk sutura ci ñoom Euh, jot na tamit ndaw yi tamit ñuy gis seen bopp ci ci dëkkuwaay yi euh, ñu bañ di dem rek comme quartier flottant yi ñuy wane de euh, image yi sax dafa rafetul. Mm-hmm. nit ñi di ko squatter sécurité lay poser sax ci yenn dëkkuwaay yi gis nga almadi li fi xew ak yeneen béréb du du du baax dara ci biir réew mi ñu ngi xaar njiitu réew mi comme def na ay proposition ñu ngi koy xaar foofu mu xel mën a dal. xel mën a dal mm. en tout cas kër kër yi yàlla na yàlla may kër. Mm. Cheikh Tidiane Diaw. waaw man je pense que euh, problème bi euh, niñ ko euh, lalee nii ak par rapport ak dakaar configuration Dakar ci biir Sénégal tel que ni mu mel nii suñ ko bàyyee noonu je pense que pour mu régler wu dina jafe trop parce que dakaar dafay phagocyté de trop population Sénégal gars yi dañuy ñëw di ñëw di ñëw da ngay te loolu moom moo feeñ ci reportage bi nga mm. xamee ni abi fay def na ko sànq te li ñuy ñëw ba amatuñu fu ñu dëkk. Euh, da ngay xool démb on en fii da ngay gis ay jigéen yoo xamee ni dañuy ñëw ndakaar di wut si liggéey mais Chérif wax na ko sànq fan la ñuy dëkk ay kër jàmbur la ñuy ñëw koo xamee ni fekk pareegul di tabax. tu vois une vingtaine une trentaine entassés au foofu di di fa dëkk te loolu lan moo ko waral c'est parce qu'à l'intérieur du pays c'est le désert il y a absolument rien du tout moi je pense que pour régler ce problème là c'est il faut une approche holistique mm. doo yem rek ci mbirum euh, champ lexical ou euh, lu mu tuddati euh, bâtiment location économiquement, tu, un cadre de vie. tu déjà des régions, ci mm. tu, tu, crées des pôles économiques forts, yo xamné day am ci région yi nga xamee ni euh, ñooñu peut-être que dinañu am lu ñu suturloo ba du ñu génn seen dëkk ñëw naan ñi ngi ñëw fii Dakar di yokk population Dakar te amuñu espace. plus Dakar seulement. mais ce n'est plus Dakar mais xam naa mbirum foncier c'est clair que ci région yi la la gën a amee espace que Dakar. que Dakar lu ndaw la li fi nekk ci nit kenn xamul nu mu toll et je pense que ça c'est un problème euh, à régler comme ni ko sunu ndaw suñ fi invité woon démb waxee je pense que il faut quand même euh, décentraliser dans les régions ñu xool nan la ñuy def foofu mais aussi région yi comme ni nga ko waxee foog moom am économie boo xam ne day tax nit toog fa Euh, ñun ñi ñëpp ci région yi la ñu dëkk ñu ci ëpp tey jii fa ñu dëkk fekkoon am na amoon na li nga xamee ni euh, moom la ñu soxla mën nañ ci euh, suqaliku am ci développement personnel du ñu ñëw Dakar te boobaa waa Dakar dinañ doon gën a feex mbirum transport yi comme comme niñ ko waxee aussi def ko ba mu yemb diggante Dakar ak yeneen région yi yooyu noonu. soo ko defee euh, di politique en matière d'habitat yi ngay def nga dérouler ko dafay gën a yomb mais soo yaakaaree ni que ça se passe à Dakar rek que tu vas essayer de régler le problème Dakar intramuros ce n'est pas <laughs> possible parce que Dakar moom euh, am na ñoo doon wax euh, c'est une bombe écologique pour nga régler ko. mais mais pourtant nag euh, il y a le, programme euh, des 100 000 logements euh, donc à la base c'est également dans toutes les régions. Euh, mm-hmm. donc même à Kébémer waa SNHLM ñu ngi fay tabax. voilà tabax nañu fa Safru a fait là-bas un très bon aménagement. am na ñoo xamee ni dañuy am kër ci région mais duñ fa toog. oui mais mais mais actuellement actuellement des. oui mais actuellement des pôles économiques comme Saint-Louis également sont en train. de bien se développer instant yi sax foncier dafa cher bu baax a baax euh, donc ci ay dëkk yu mel ni Saint-Louis à cause de du gaz et, euh, et du pétrole euh, donc mais aussi il ne faut pas oublier que y a par exemple une nouvelle ville bi nga xamante ni Mbour la parce que léegi Mbour c'est devenu vraiment une attraction parce que autoroute à péage bi maintenant en moins de de 40 minutes yaa ngi yaa ngi Sandiara aéroport euh, voilà donc. ça veut dire que dès qu'il y a attraction économique. oui les gens. donc il faut créer de nouvelles villes. vraiment il faut voilà il faut créer de nouvelles villes. et toutes les commodités. et toutes les commodités yi dem avec euh, donc euh, avec ça en tout cas c'est un sujet très passionnant. bu euh, buñ ci doon wax dinañu toog ba fin émission bi di ci wax parce que sujet sujet social la parce que <laughs> franchement euh, nit yi moom bëgg nañ fu ñu dëkk accès au logement loolu ñu la ko joxee rek cest dire que kër moom boo ko amee rek c'est une épine du pied euh, qui est la et puis les banques aussi puissent accompagner euh, Sénégalais yi pour ñu mën a accéder euh, donc au logement chaque fois dañuy wax wàllum taux taux de de de de de ci wàllum dette yeeg yi ni mel donc ñu bàyyi si xel bu baax a baax 40 dinañu dem euh, foofee euh, RFM docteur Abdoulaye Diop vice-président bu association sénégalaise euh, de gynécologie obstétrique mooy nekk invité donc Babacar Fall ak Georges Déthié Diop donc tout de suite ñu ñëw ak